mu ne seytaan a ma sant yàlla ju si yonent bi sant sama wasila sëñ Babacar Si maa ngi sant ñëpp ñaan ñëpp jàmm yàlla may Tabaski jàmm si dem ba léegi alhamdulilah xam na lu yàlla andi nag ak jàmmam si di mais ñun gis nañ suñu bopp ne maire baa ngi ñuy dimbali gouvernement baa ngi ñuy si loxaam Abdou waa maire bi ñoom ñëpp macha allah wax dëgg yàlla wër ko dimbali ñu fi indiwaat juróomi millions yoo xam ñu ko dimbalee pour ñun ñi mbas bi nekk si dëkk bi gis nañ suñu bopp bu baax ceeb yi dugg na diw ñuy dugg na saabu yi dugg na diw ñuy dugg na sukkas dugg na ñëpp dugg na wax dëgg yàlla lu fi yàlla teg la nag mais doomu aadama dugg nañ seen loxo ñu sant yàlla bu baax client yaa ngi ñëw ñu ngi jaay ñu ngi jël suñu wërsëg ñu bëgg na client yi gën a ñëw yoof am na jën am na sëdd am na yaa mais mas moom gis nañ suñu bopp nag wax dëgg yàlla maire yoof moom Abdoulaye Diouf Sarr amuñu leen luñ ko lu di ko sant di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla jox nañu xaalis bu bëree bëri ñun xuuskat yi ba kenn ku si nekk gis nga sa bopp kenn ku si nekk li nga si war a am jël nga ko wax dëgg yàlla moom ñu koy sant dikk gërëm bu baax di ko ñaanal fi mu jëm yàlla na fa egg ak jàmm saat maire bi moom jàppale woon nañu xanaa dañuy demaa rek dëkk rek dem jàppale woon nañu de jàppale waa jàppale ñu bu baax a baax a baax suñ demaatee dañ koy waxaat rek waaye jàppale nañu moom ñu fii 3 millions 500 la ñu jox. waaw yàlla moo dogal euh, ma doon marière dëkk si dëkk bi doon xale bu ndaw teel a investir nag dama teel a investir di jënd ay gaal ay moteur affaire yooyu di jox ay nit ñuy dem géej. mais ci biir loolu dama fi amoon benn accident bu fi amoon mooy que ne diggante waa yoof la woon mooy coow li nga doon dégg ñu naa yoof ak gendar yi gaal googu du gaalu gendar gaalu yoof la man maa ko moomoon ñu taal ko bii ko waa yoof taalee man si dëkk bi laa dëkk ko léegi mu amoon ay affaires yi dem yoon ak yooyu ma ñu ne jaru ko ku ñuy wax ñàmbe ku ñuy wax ñàmbe moo ñëw si man ne ma Ablaye Diouf saar moo ma yónni nee na ma laajteel ko borom gaal gi ma ne man maa ngi nii mu ne ma nee na bul dem gendarmerie bul dem police bul dem fenn Ablaye Diouf Sarr nee na nga wax ka sa problème bi ñaata la mu yëkki ka mu fay la sa xaalis te béppi boobu ba léegi ñu ngi may jaabanteloo maire xa ñëw gisuma dara liñ doon wax amul. maintenant Abdou Naar moom ma si ma sa recevoir bi mu recevoir mu ne moom affaire bi mën na ko jël en charge fay ka ma ne ko amul problème nañ dem ma booleel ak banque bi nga xamante ne nii foofu laay liggéeyee yaa ngi may dégg nga di ko verser chaque fin du mois nga verser ko mais depuis ñëwul benn cinquante mille francs la ma sa déggee si dooleem si dooleem laa la wax. comprendre nga mm-hmm. léegi man si li ma soxla mooy dama bëgg ñu dégg ko boobu ba léegi ñu ngi dugg si dëkk bi topp kam bi si di maye ay quatre cent mille ay cinq cent mille ay trois cent mille mais balaa ngay def loolu fekk nit ki nga xamante ne nii entre yoof lak yoof nga waxoon say wax ne di nga jël affaire bi chargé di nga ko fay balaa ngay maye ay quatre cent mille ay trois cent mille fay ko moo gën te si dëkk bi laa dëkk quoi dañ ma ameel suma alal ne ñoom ñoo ko jëloon en sarge ñoo may fay ba jusqu'à présent gisuma dara liñ ma waxoon dara amu si ma bëgg nag lii nii ñoom ñu moom moom laa yàqule ñoom ñoo jëloon en charge ku ñuy wax ñambe ñambe moo ñëw ba ci man na ma ablaa Diouf Sarr moo ma yónni nee na dina la fay bul dem gendarmerie bul dem tribunal bul dem fenn ñambe moo ma ko wax te boobu ba léegi ñu ngi dugg ci dëkk bi di maye ay koppar yoo xamante ne amul benn njariñ ñun ñu doon ay ndaw yoo xamante ne dañ investir suñu alal yàqu ñu war ñu ko dédouaner fay ñu ah ñu di ñu dawloo boobu ba léegi. boo ñëwee gis gisuma si dara mosuñu mosu mosuma si gis sama bopp mosuma si man ndaw laa dëkk si dëkk bi di investir ay nit di si jariñu yaa may dégg kon ñun lañ woon ñun ñoo gën a mérité woo jàppale ay naankati ataaya ak yu ma xamul comprendre am na loo xamante ne du dëgg du yoon. dama bëgg nag lii nii monsieur le maire yëkk moom ab Abdoulaye Diouf Sarr si wàllu boppam mu xam ne nii la demee la mu waxoon la mu waxoon yoon ni ko ay ndawam dara amu si dafa ñu si dara